asalaamaaleykum ajaram juste après yow la asalaamaaleykum. maaleykum salaam Pape Sidi. bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi dellu di ziar di rafetlu seen plateau bu mucc ayib boo xamante ni tey jii amal ngeen ko. jërëjëf tur wi ak foo ñuy woowee. Abbas Sow laa tudd je l'assume entièrement. Mhm. nekk RTS. Mhm. Abbas Sow RTS. kon ci jotaay bii dañuy. Mhm. taxaw. Mm-hmm. sant yàlla julli ci mémoire benn jàmbaar bu wàcc liggéey tey. Mm-hmm. muy soxna soosu. Mm-hmm. wàcc liggéey moom ak doomam. di jaale waa këram di jaale njabootam ci yépp Pape Sidi seen plateau bi lu tax mu am solo. da ngeen teg baaraam tey fuy métti ci réew mi te kenn sañu ta wax barki Seydina Muhammad mi ma yaakaar j'ai vécu des scènes personnellement c'est un journaliste ah ala RTS ak suma grande sœur bu ma bokkal ndey ak baay bu am kayit yëpp sama grande sœur bu ma bokkal ndey ak baay ñu ngi doon wuyoo ci turu ndey Mariama Sow moo namp gàll jox ma diggante hôpital régional bu Ziguinchor ak hôpital Silence bu Ziguinchor même pas quatre kilomètres mu accouché ñu ngi ci weeru koor ci weer bi sax la woon bi mu accouché Pape di défaut de prise en charge médical mmh. oxygène ci la faatoo oh. doomam mu nekkoon sama loxo màggee sama loxo ba ni mu toll ma mayee ko mu sëy ji sama waajur bu jigéen fii ci CTO la nelawoo ci défaut de prise en charge correcte médical Allahu akbar ci yàlla. su ma waajur bu góor condition la wàccee liggéey ci hôpital régional bu Ziguinchor. li may wax docteur Fatima mi ngi Paris actuellement dégg na xam na li may wax pour vous dire que les gens meurent en silence dans nos hôpitaux de manière injuste, illégale, anormale. Comment tu peux comprendre que permanence nuit amul ci benn hôpital bu Sénégal bu benn professeur di fanaan tous les médecins ñu ngi ci clinique privée yi Et ça, c'est le regret que j'ai pour le Sénégal que nous voulons rêver. Que le Sénégal que nous rêvons, quand le service public ne peut plus assurer le minimum pour les concitoyens. On a énormément service public mënatul leen dara ci ñoom du école du alimentation bu du service de santé bu baax tey jii lépp loo bëgg ci lu baax da nga naan nañ leen dem ci privé bi c'est pas normal et ce sont ces mêmes qui devaient servir le service public ñoom ñoo nekk dans le privé di xar matt du matin midi soir pour lan des gains de la vie des gains de la vie ñu nekk fii di tabax ay immeuble du n'importe quoi deux médecins qui sortent même pas un an ñu nekk dans un luxe insolent dans un luxe insolent ci loolu la ñuy dund Sénégal comment on peut être dans une société qui se nomme le Sénégal dans un pays qui se nomme le Sénégal à l'état actuel pour nga faju benn vaccin pour nga am ko c'est un problème vaccin de prévention pour que nga am benn prise en charge médicale bu normal un problème et on se dit dañuy nekk sur la voie de l'émergence il est bon de créer des structures il est bon de construire il est bon de faire mais sans une conscience professionnelle ce n'est que ruine de l'âme il ne faut pas que ñu ragal wax dëgg dëgg mooy mujj il faut qu'on assure le strict minimum dans les bas-fonds du Sénégal demal à Sédhiou demal à Kolda où il n'y a pas un seul gynécologue ngeen bëgg nit ñi du ñu dee foofu dinañu dee tant qu'on continue à penser que le luxe c'est Dakar tant qu'on continue à faire croire que c'est Dakar la vie tant qu'on continue à investir à Dakar au détriment des régions lii la ñuy jël il faut qu'on repense notre système suñu hôpitaux yi boo demee ce qui est le plus élémentaire mooy le service d'accueil nga yegg si ñu ne la dal ak jàmm fan nga bëgg a dem demal ci hôpitaux yi ma main sur le très saint courant ci weeru koor la ñu ne yàlla bu ma fanaan tu n'as même pas un interlocuteur fiable nga joge fa dem dans nos urgences c'est des mouroirs qu'on en train de créer en longueur de journée Parce il faut qu'on repense notre système. Il faut qu'on repense notre système de santé. Il faut qu'on repense, qu'on repense, qu'on repense. Et que l'homme, nous que le Sénégal, ce n'est pas les quatre coins de la ville de Dakar. Fini, paye, c'est devenu infernal. On apprend des leçons, mais on les récite mal. Notre système de démocratie, il faut voir un tey jii une démocratie territoriale et équitable amul pour nga am tey benn bëñ bu lay métti da ngay jógee dang dangee Touba ba ba ba ba ba ba ba Dakar.